gannaaw ba ñu seetee ñaari mbër yi niin nañu wala niinuñu diggante Bébé Dame ak Caatu Daaru journée Baol Production fii ci Diourbel samedi le 15 mai ay ca arbitre suuf la na génn seen diggante Bébé moo ñu won gannaaw Caatu Daaru la ñu jàkkaar lool acca ñoom ñaar daw nañu daje dóorante jagay lewaatoo attention Caatu Daaru dugal na ku Bébé Dame na waaw kay waaw waaw dooral ma door waaw waaw Bébé Dame ak Thiatou Darou deuxième combat de la soirée ayca ma nga noona ma noona eh Bébé Dame mi njool la de waaye mi ngi dóor Bébé Dame a dóor waaw waaw attention waaw waaw ñaari xale yaa ngi doorante oh attention njool mi njool mi ay laaw lay door ay Touba Dakar lay maye Bébé Dame Thiatou Darou oh Thiatou daw na yooru wante àggul Bébé Dame ak Thiatou Darou Bébé mooy njool mi Thiatou Bébé Dame <laughs> oh! caatu daaru daan na ko caatu daaru caatu daaru daan na bébé daam gàccey door gàccey daan fay na ko maa la ko wax xale ba daan na ko laa ilaaha illallah deuxième combat de la soirée